ma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 auzu billahi min alsheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamina wassalaatu wassalaamu ala almabuuthi rahmatan lil alamina sayidina muhammadin ilmakin wa ala alihi wa asxaabihi ajmaina ixwat al imaani wal islaam wal ihsaan wal iraadati assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci muhammadin sallallahu alayhi wa di leen siyaare di leen ndokkeel ngeen baal àq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhanahu wa taala nangu ñu suñu jaamu yàlla te jéggal ñu suñu rëcc rëcc di jël nuyoo boobu rek ak ziar bi di ko teg ci loxol kilifa rek kilifa gi a cheikh Abdul Ahad Mbacke eh, mu jot li ñu ko mbooleem mbokk yi nga xam ne ñoom lañu bokkal liggéey bi di ko siyaar bu baax a baax di ko ñaanal yàlla mu yàgg ci suñu kanam lool waaye tam ñu bëgg liggéeyal maamu Xaadim Rasul lépp yàlla jàppandal ko ko te nu ànd ko ak moom bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa kon mbokk yi tey ñu ñëw rek jéem a jublu ci li nga xam ne lii fi moo fi ñëw ci ay laaj laaj bi ci jëkk mbokk mi ñu wax sëriñ Alaaji Mbay yónnee ko fi muy laaj maa hukmu tarki ayatin aw ayatayni min al-fatihati fi salaat mbokk mi day laaj lan mooy ki nga xam ne kii day julli te bi muy julli suratul fatiha bi mu bay ci ab aaye wala ñaari aaya nan lay def dañ naan xaala baadul malikiyati taariku ayatin min alfatihati sahwan yushrau lahu sujudu sahwi xabla salaami mamuma imaaman aw fazzan ki nga xam ne kii day julli fatiha ji mu bàyyi ci benn aaya wala ñaari aaya bu deeti ci ak njuumte la kooku dañ ko naan boo jullee ba julli gi jeex ba nga taay sa taay bu mujj bala ngay sëlmal da ngay sujjóot sujjóotu sujjóot ab jamac maanaam ñaari sujjóot ngay sujjóot daa di taayawaat daa di sëlmal su ko defee loolu nga bàyyi ci faatixa ji ah, du yàq ci julli gi dara ku ko def daal maanaam ku ci bàyyi bi aaya wala ñaari aaya ci faatixa boo jullee ba julli gi mat da ngay sujjóot sujjóotu sahwi maanaam sujjóotu jamac boo xam ne bii bala ngay sëlmal nga koy sujjóot lii may wax ni nag maa ngi ko sukkandiku ci ñi nga xam ne dañ ñu jàngal al fiqhul maliki maanaam ñi jàngalee jàngaleen imam malik ci lañ ko sukkandiku su ko defee dañu ne it wal mashhuru indahum i'adatu salaati ihtiyaatan wa muraatan lil xawli bi wujubil fatihati fi kulli rakaatin ñoom ñoo nga xam ne nag fiqhul maliki lañ ñuy jàngal dañ ne soo sujjóotee sujjóot jama joobu itam ngir ni nga wàññi ci fatiha ji ab aay wala aay soo bëgg nañu maanaam boo sëlmalee maanaam nga baamu war julli gi ngir sàmmonteeg wax jii ñu wax ne fatiha moom daa war a mat daa war a nekk ci ay e, rakka boo mën a julli rek maanaam fatiha da caa war a ànd dafa war a mat e, te kon jéem julli nga rakka boo xam ne bii xañ na fatiha ja am na lu ca manqué e, ñu ne boo sujootee bañ baax na waaye tam bëgg nañu sopp nañu maanaam nga baamuwaat julli ga ngir sàmmante loolu ñu wax ne fatiha moom dafa war a bokk ci rakka bu ne ngir julli ga gën a mat mbokk mi beneen laajam bi ci topp mi ngi aju rek ci lu jëm ci wàllu asaka day laaj asaka nan lay demee daal bu dee ci ak jur la bu dee ab xaalis la euh, nan lañ koy génnee lu muy toll waaw dañ koy wax ne ko asaka moom dafa nekk ci far yi nga xam ne dafa war ci ab jullit maanaam mu war koo bàyyi xel dafa bokk ci ponk lislaam yi nga xam ne dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax di ca jéem a góorgóorlu su ko defee euh, lu jëm ci wàllu asaka woowu bu dee ci wàllu xaalis la léegi asaka fii ci Sénégal léegi niñ koy xayma mooy li nga xam ne lii moom ah, danga koy am mu dib xaalis maanaam soo ko dencee ren ba déwén euh, nga war ci génne asaka léegi liñ koy xamaa mooy ñi yore wàllu asaka fii ci Sénégal dañ na léegi koo xam ne ki denc nga xaalis boo xam ne bii maanaam mën nga ci jënd quatre-vingt-cinq ori gramme nga denc ko ren ba déwén ne su boobaa euh, loolu war nga ko xayma la ca war a génne ci asaka nga génne ko quatre-vingt-cinq or nag jamono jii liñ ko cay xayma mooy benn gramme or bu ne ñu ngi koy jaayee trente mille sept cent seize trente-neuf mille sept cent euh, mondial la yaakaar naa ñooy xayma njëgi or yi dañ ko xayma ci or bi defe naa bi nga xam ne bii moo gën a seer nga xam ne gramme benn gramme bi rek day jar trente-neuf mille sept francs trente-neuf mille sept cent seize francs nag boo koy xool euh, euh, boo ko multiplier quatre-vingt-cinq maanaam day nekk trois millions trois cent quinze mille huit cent maanaam ñetti million lay doon ak juróom-ñaar fukk ak juróom ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari dërëm euh, laa ngi daal koo xam ne kii denc nga xaalis boo xam ne bii mat na Euh, ñetti million ak juróom-ñaar fukki junni ak juróom ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar nga denc kom at su boobaa war nga cee génne asaka niñ ciy génne asaka nag mooy euh, trois millions trois cent soixante quinze mille huit cent yooyu moom ngay diviser quarante soo ko diviser quarante résultat ba mu la jox maanaam mooy nekk li nga xam ne lii moom nga war a génne asaka ci somu xaalis boobu su ko ëppee it su ëppee lim bi ñu wax ne bu ñu tolloo nga war ci génn asaka it noonu ko koy def daal xaalis bi daal nu mu toll bu matee eh, lim bi mu wax wala mu ëpp ko 40 eh, nga koy diviser soo ko diviser 40 résultat ba mu la jox mooy doon asaka yi eh, xaalis boobu nga xam ne bii moom ngay génnee asaka kon loolu mooy bu dee ci wàllu xaalis bi la bu dee ni nag asaka ci wàllu jur gi comme ni mu ko waxe bu fekkee ay giléem nga am maanaam soo amee juróomi giléem ba ci juróom-ñeenti giléem eh, benn gàtt nga leen di génneel asaka asaka maanaam joj yooyu giléem ci ay juróom gàtt nga gi lañ koy génne maanaam bëy wala xar soo amee juróomi giléem ba ci juróom-ñeenti giléem danga leen di génneel benn gàtt benn gàtt bu ndaw maanaam boo xam ne euh, dugg na ci ñaareelu atam waaye tamit bu dee ne da am fukki giléem ba ci fukki giléem ak ñeent ñaari gàtt yooyu nga leen di génneel maanaam ñaari gàtt yoo xam ne yii dugg nañ ci seen ñaareelu at boo amee fukki giléem ak juróom ba ci fukki giléem ak juróom-ñeent ñetti gàttu yu toll nga leen di génneel boo amee ñaar fukki giléem ba ci ñaar fukki giléem ak ñeent ñeenti gàtt nga leen di génneel boo amee hmm, boo amee euh, ñaar fukki giléem ak juróom ba ci fanweeri giléem ak juróom euh, da nga leen di génneel euh, gàtt ba gàtt bu jigéen lay doon boo xam ne bii moom itam dafa dugg ci ñaareelu atam boo amee fanweeri giléem ak juróom benn ba ci ñeent fukki gileem ak juróom euh, da nga leen di génnal gàtt bu jigéen boo xam ne bii maanaam euh, dugg na ci euh, ñetteelu atam boo amee ñeent ak juróom ba ci juróom benn fukki gileem maanaam gàtt boo xam ne bii dugg na ci ñeenteelu atam moom ngay leen di génneel boo amee fanweeri gileem eh boo amee juróom benn fukki gileem ak benn ba ci juróom-ñaar fukki giléem ak juróom gàtt boo xam ne bi dugg na ci juróomeelu atam nga leen bi génneel boo amee juróom-ñaar fukki giléem ak juróom benn ba ci juróom-ñeent fukki giléem ñaari gàtt yu jigéen yoo xam ne yi dugg nañ ci seen ñetti at moom itam nga leen di génneel boo amee juróom-ñeent fukki giléem ak benn ba ci téeméeri giléem ak ñaar fukk Euh, ñaari gàtt yoo xam ne yii dugg na ci seen ñeenti eh, ñeenti at maam nga leen bi génneel boo amee nag téeméeri giléem ba ci ah, téeméeri giléem ak ñaar fukk ak benn ba ci téeméeri giléem ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ñaari euh, gàtt yoo xam ne yii tàbbi nañ ci seen ñeenti at walla nga génne leen ñeenti ñetti gàtt yoo xam ne yii euh, tàbbi nañu ci seen euh, ñetti at yoo xam ne dañoo nàmp nag ba regg moom la ci jublu moom nga leen bi génneel su ko defee nag bu giléeme continuer ëpp lim bi mu mujj wax te mooy dem nga am ba am la ëpp téeméeri giléem ak ñaar fukk léegi da ngay wàññi saa li da ngay leer soo wàññee ñeent fukki giléem génn benn gàtt bu tàbbi ci ñetti atam boo wañaatee juróom fukk génne benn gàtt baax ne di dugg na ci ñeenti atam kon bu dee asakay giléem moom noonu rek lañu koy génnee bu dee jur gu gàtt gi la te mooy xar ak bëy wala nga boole xar ya ak bëy ya maanaam euh, boo amee ñeent fukki xar wala ñeen fukki bëy wala nga boole ay bëy ak i xar ba ñu mat ñeen fukk ba ci téeméer ak ñaar fukk benn gàtt nga leen di génneel asaka boo xam ne bii dugg na ci ñaareelu atam boo amee téeméeri xar ak ñaar fukk ak benn wala téeméeri bëy ak ñaar fukk ak benn wala nga boole leen bëy ak xar ba mat téeméer ak ñaar fukk ak benn ba ci ñaar téeméeri xar walla ñaar téeméeri bëy wala nga boole leen muy ñaar téeméer ñaari gàtt yu dugg ci seenam at yu tàbbi ci seen ñaareelu at nga leen di génneel asaka soo amee ñaar téeméeri xar wala ñaar téeméeri bëy wala nga boole leen bëy xar muy ñaar téeméer ak benn ba ci ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent euh, ñetti gàtt yoo xam ne dugg nañ ci seen ñaari at nga leen di génneel asaka soo demee nag ba xar ya wala bëya wala xar ya ak bëya boole nga leen maanaam ñu ëpp euh, ñetti téeméeri gàtt ak juróom-ñeent fukk ak juróom da ngay def saa boo wàññee téeméeri xar wala téeméeri bay wala nga boole ay béy ak xar ba muy téeméer nga génne ko benn gat léegi lim boobu moom itam bu dee eh, ay xar la ak béy wala ay béy kese wala ay xar moom itam lim yooyu ngay jël ku ci nekk rek loolu mooy doon asakaam bu fekkee ni ci aw ay nag la nag itam moom itam li tàmbale ci fanweeri nag ba ci fanweeri nag ak juróom-ñeent euh, da leen di génneel benn euh, nag bu ndaw boo xam ne bii dugg na ci ñetteelu atam bu fekkee ne am nga ñeent fukki nag ba ci juróom nag ak juróom-ñeent euh, da leen di génneel benn nag bu ndaw boo xam ne bii dugg na ci ñeenteelu atam léegi nag soo amee lu ëpp ñee juróom fukki nag ak juróom-ñeent léegi da ngay def Euh, soo wàññee fanweeri nag maanaam boo amee lu ko ëpp soo wàññee fanweeri nag génnee benn nag bu ndaw bu dugg ci ñetteelu atam boo wàññaatee ñeent fukk génnewaat beneen nag boo xam ne dugg na ci ñeenteelu atam noonu koy def di wër di wàññi soo wàññee fanweer génne euh, benn bu dugg ci ñetti atam boo wàññaatee fukk génnewaat benn boo xam ne dugg na ci ñeenteelu atam ba nag ya jeex moom itam bu dee ni ci wàllu nag yi la moom itam noonu lañ koy génnee asaka yeneen laaj yi ci topp mbokk mi moo ko fi yónnee muy jaarale ko ci jawriñ Muudu Ngom muy laaj ki nga xam ne kii dafa faatu bàyyi fi ñaari waajur kese kese ci ñu ko war a doon ak ki faatu bàyyi fi ay doom kese kese ci ñu ko war a doon waaye nag ak ki faatu bàyyi fi ay soxna kese kese kese ki ñu ko war a doon waaye tamit ki faatu bàyyi ñoon ñëpp nga ne dañ ko war a doon muy bàyyi na fi ay doom ak ay soxna ak ñaari waajuram loolu lay laaj ku ci nekk sa miraas nan lay war a deme waaw ku jëkk gi dañ ne man maata wa taraka walidayni faqat fa aslul masalati min salaasa lil ummi sulus walil abi al baaxi nit ki bu faatoo nga xam ne ñaari waajuram dong la fi bàyyi ci ñi ko war na doon maanaam ñaari waajuram dong nag la wax ne ñoom dong ñoo fi des ci ñi ko war a doon léegi kooku faatu lim fi bàyyi ci alal dañ koy def ñetti xaaj jox baayam boobu ñaari xaaj yi benn bi ci des ñu jox ko yaay ji bu fekkee ni ñaari waajur dong la bàyyi moom nga xam ne ñi ko waroon a doon ñaari waajuram yooyu dong nga fi des maanaam ñaari waajur yooyu moom alal ji dañ koy séddale ñetti xaaj jël benn bi jox ko yaayam jooju ñaari ci des ñu jox ko waajuram bu góor woowu waaye tamit maanaam ñu ci joxe misaal ñu ne maata wa taraka walidayni faqat wa mablagan min al maali xadruhu mi'taani lil abi minhu eh, wali ummi minhu loolu mooy li ma doon wax sànga rek maanaam dañu joxe misaal ne eh, bu fekk ni lañ fi bàyyi ji xaalis dafa nekk mille francs léegi bu ñu ko defee ñetti xaaj bàyyi bi da ci am six cent soixante six virgule sept yaay ji am ci trois cent trente trois virgule trois ñaar yooyu boo ko boole mu joxaat la miin beneen bi ci toppaat man taraka awlaadan dukuran faqat ki nga xam ne it nag dafa faatu waaye ñi ko war a doon ñëpp jóge nañ fi ba ay yu góor kese kese la dese doomi góor kese kese yaqsimuuna baynahum ma taraka bisawiyati bu dee ay góor ay doom yu góor dong nga fi des ñi ko war a doon kenn desul lu dul ñoom ñoom góor ñooñu dañu xool la mu yor ci alal lam fa bàyyi ci alal maanaam ñu séddoo ko ci seen diggante ñoo cay yemle loolu it dañ ci joxe misaal ma ne man maata wa taraka awlaadan zukuran faqat wa taraka eh, mi'atayni li kulli waaxidin eh, arbauna dañu naan fekkee ni dafa faatu maanaam ñu doon ko miraas fekk ne mille francs damay joxe misaal rek nag mille francs yooyu bu leen ko seddalee maanaam euh, ku ci nekk da nga ciy am euh, deux cent masalan bu fekkee ne dafa bàyyi lu mat euh, juróomi doom masalan yoo xam ne ñépp ay góor lañu ku ci nekk da ciy am daal di ah, da ciy am deux cent su fekkee ni nag inaasun faqat astulusaani fardan wal baaqi raddan su fekkee ne ay doom yu jigéen kese kese kese itam ñoo fi des ci ñi nga xam ne ñii ñoo ko war a donn maanaam dañuy xaaj alal ji ñetti xaaj ba tey jël ñaari jox ko doom yu jigéen yooyu waaye tamit la ca des ci alal ja dañ leen koy delloo jox leen ko ndax gisuñu keneen koo xam ne kii war naa bokk ci miraas ni am ca cër kon ñoom buñ leen génneel seen cër bi nga xam ne mooy farata bi te mooy dañuy xaaj alal ji ñetti xaaj jël ñaari xaaj jox leen bu des fa benn ba benn ba it dañ leen koy delloo ne leen lii seen alal yéen ko moom ndax ñi war a doon seen waajur yi ñëpp yéen dong nga fi des euh, ñoo ko war na doon su fekkee ni nag ñim fi bàyyi dañoo doon ay góor ak jigéen foofu moom dañ naan li zakari mithlu hazzil unsayayni bu ay doom jigéen dong dong dong la fi bàyyi alal dañ koy séddale maanaam Euh, bu ñu joxee góor euh, bu ñu joxee jigéen benn cër jox góor euh, cërëb ñaari jigéen masalan bu ñu séddalee alal ji dañuy xool bu dee ni ñaari góor la masalan ak ñaari jigéen léegi dañu def góor ña ñeent daal di def góor jigéen ña ñaar bu ko defee day doon juróom benn juróom benn yooyu maanaam muy siis buñ ko diviser alal ja maanaam séddale ko alal ja résultat ba muy génne mooy doon benn cërëb jigéen benn cërëb jigéen boobu nag moom ngay multiplier maanaam deux maanaam da koy multiplier fois deux moo la jox cërëb góor loo tax dañuy bu dee ni ay góor la góor gu ak jigéen góor gu nekk dañu koy def mu nekk ñaari góor su ko defee noonu nga koy mën a génnee bu ko defee bu dee ni góor ñi ak jigéen ña daal ñoo fa des ñoom itam noonu la ngeen koy séddalee masalan bu ñu defan sédd leen alal ji maanaam résultat bi maanaam génn téeméer maanaam mooy doon cërëb jigéen léegi kon góor gu nekk da ko jox mille francs leneen li ci toppaan nag ci wàllu miraas boobu ba tey mooy kii faatu na bàyyi fi ñaari waajuram ak ay soxna wala benn soxna ak ay doom yu góor ak doom yu jigéen nii lañuy ñuy séddalee alal ji dañuy xool alal ja nu mu toll ñu mm, diviser ko vingt quatre suñ ko diviser vingt quatre euh, résultat boobu mu joxe biñ ko séddalee biñ ko séddalee résultat ba maanaam dañu cay euh, jox baay bi maanaam ñeenti xaaj maanaam dañ ko koy multiplier fa 4 mooy doon cërëb baay waaye itam multiplier ko par fa 4 mooy doon cëraw yaay ji su boobaa moom noonu la fay demee baay bi da ci am euh, sudus muy boo ko boo boo séddalee alal jëm vingt quatre résultat boobu mu la jox da nga koy multiplier fois quatre résultat ba la jox mooy doon cërëb yaay nga jëlaat lu toll noonu mooy doon cërëb yaay cërëb baay ak cërëb yaay maanaam ñoo ca yem su ko defee résultat boobu itam nga multiplier waat ko trois résultat ba mu jox mooy doon cërëb soxna sa wala soxna ya ñoo koy bokk la ca des góor ña ak jigéen ña ñoom ngeen koy seddale su jigéen amee benn cër góor am ñaari cër bu leen miraas mi daal ñoom ñëpp ñoo fi daj nii ci ñiimu lim noonu lañ koy séddale moom itam dañu jël alal ja diviser ko 24 suñ ko diviser 24 résultat ba mu joxe loola dañu koy multiplier 4 buñ ko multiplier 4 résultat ba mu lay jox moom mooy doon cërëb baay nga jëlaat lu toll loola mooy doon cërëb yaay ja waaw résultat boobu ba nga ko multiplier 24 itam lam la joxoon nga multiplier waat ba nga ko diviser 24 résultat ba mu la joxoon nga multi multiplier waat ko 3 soo ko multiplier 3 moo la jox cërëb soxna si walla soxna yi waaye kon boo génnee ci rëb soxna si wala soxna yi génn ci rëb baay ji ci génn ci ci rëb yaay ji la ca des nag moom ngay doog a séddale góor ñi jigéen ña su jigéen amee benn cër góor am ñaari cër mooy miirasam ki faatu bàyyi fi ñaari waajuram ak ay soxna wala benn soxna ak ay doomu góor ak doomu jigéen yeneen laaj ji ci topp Sëriñ Alioune Badara Ndiaye moo ko fi yónnee ñoo koy ziar bu baax a baax moom day laaj laajam bu njëkk muy lu jëm ci wàllu tukki bésub àjjuma waaw lañ ko cay wax rek mooy nit ki bu nekkee ci dëkk boo xam ne bii jumaa yi dafa am ñu war a julli àjjuma mu bëgg tukki ci bésub àjjuma boobu maanaam day tukki balaa fajara jot su ko su ko su manee maanaam may nañ ko bu balaa fajara jot moom mu génn dëkk bi maanaam dem tukki wala euh, dëkk ba nga xam ne di fa lay jëm ca tukki ga am juma joo xam ne bii su fa demee dina fa mën a jullee jumaaye ajjuma waaye tamit mu am euh, kóolu teeg wala yaakaar ci ne euh, balay jullee ajjumay jot dina mën a àgg ca dëkk boobee kon dal ñaar yi moom boo dajee dinañ ko bàyyi mu tukki maanaam mu tukki balaa fajara jot wala mu xam ne dëkk ba mu jëm kat am na jumaay waaye bala balaa jullik ajuma gaa jot maanaam dina mën a àgg mën a julli ji jumaa ja waaye nag bu fekkee ni dafa xaar ba fajar jot jote ko ci dëkk bi mu war a jóge léegi dootuñu ko may muy tukki te julliwut ajjuma ba pare wala nga xam ne dëkk ba nga xam ne bii fa la jëm amul jumaa yi tamit maanaam deesu du ko mën a may muy génn di tukki te julliwut jumaa ya ba pare ñaari tomb yooyu lañ koy may muy balaa fajar moom may nañ ko mu tukki wala boog dëkk ba mu jëm am jumaa joo xam ne ji dina ci fa mën a àgg bala julli jumaa bu boobaa moom dina mën a dem waxtu ko neex waaye nag su fekkee ni dafa xaar ba fajar gi jot moom euh, déjà ko may moom mu mën a génn di dem di tukki te julliwut jumaay ba pare waaw loolu mooy nga xam ne mooy jëkk ci wàllu woowu su ko defee it muy laaj nga xam ne kii dañ ko raw ci julli waaye nag imam bi Eh, am na ngantal maanaam mënatula àggale eh, julli gi léegi moom mu mu xëcc ko nga xam ne kii dañ koo rawan ci julli gi waaye eh, maanaam dafa ko raw ci julli gi imaam bi mu demee ba am ngant maanaam mu xëcc ko ngir mu mott li julli gi moom kooku nan lay war a mën a àggale julli ga waaw loolu lu mën a nekk la maanaam nit ki mën nañ koo raw ci julli imaam dem ba mënatul a dem ci julli gi maanaam mu xëcc ko mu àggale julli gi moom moomu ñu rawoon ci julli gi waaye su booba day mottuli julli gi imaam ba ànd koog mbooloo ma su ko defee su julli mbooloo ga matee la ñu ànd nag imam ja ak lim leen moom léegi da di junju wax leen ñu toog xaar ko ñu bañ a sëlmal léegi moom mu ñu rawan te ñu xëcc ko mu war a àggale julli ga julli ga léegi àggale maanaam la ko rawan ca julli ga daal di toog taay sëlmal ñoom itam ñu dëgg sëlmal waaw loolu lu mën a ne la euh, mën naa wuutu imam bu demee ba am ngant waaye noonu lay àggane julli ga day ànd ak ñoom àggale leen lañ ñoom dese woon ca imam ja ñoo imam ja suñu àggalee mu ne mu junj leen ne leen toog leen xaar ma ba ma àgg ba ma ba bos su jullee ba julli mu àgg moom itam la ko rawoon bu ko defee mu daal doog a sëlmal ñoom itam ñuy doog kon dañu toog xaar ko waaye duñ ko jëkk a sëlmal ndax imaam de su ko jëkk a am naa mel na ne am na laaj bu fi mas a beneen laajam bi ci topp dafay laaj al xuduri salaatul jamaati dafay laaj eh, ban distance la nit ki ci diggante ak jàkka ngir mu bañ a teewe mbooloo ga dañ ne falaa xaraja alal insaani ida salla fi masjidin qaribin min daarihi aw masjidin baidin anhu fal masajidu kulluha buyutullahi taala eh, dañ ne Euh, nit ki euh, bu nekk ci dëkk boo xam ne bii ay juma yu bari dafa nekk wala ay jàkka yu bari dafa nekk bu ko ca neex rek mën na caa dem julli ji euh, bu ko neexee mu xool jàkka ji di ko gën a jege mu di fa jullee wala di ko gën a sori mu di fa jullee ji loolu moom jéem jàkka yi dafa bari rek boo ci tànn rek maanaam Euh, bëgg faa jullee ji may nañ la nga dem di fa jullee ji moo xam nga tànn jàkka ji la gën a jege wala jàkka ji gën a sori ndax jàkka moom fu ñu ko tabaxee rek maanaam néegam yàlla la boo xam ne bii dañu fay dem rek euh, ngir di ko jaamu ji waaye tam dañ ne wasalaatu fil masjidil abadi fiha ziyaadatul ajri waaye nag ne ngay dem ca jàkka ja gën a sori di fa jullee ji maanaam ci la yoon di gën a bare li kasratil xutaa ilal masjidil abaadi ngir jàkka jooyu nga xam ni dafa sori maanaam jéego yi nga xam ni dangay dox di ca dem maanaam muy gën a bari maanaam jéego yu bari fal abdu yukkutabu lahu mamshaahu ilal masjidi warujuuhu minhu ndax ne ne yow jaam bi saa boo waajale julli waxtu julli jëm te jàkka ja di dox maanaam ne ne yooyu ngay dox dañ la koy bindal ay tuyaaba boo dee dem waaye tamit dañ la koy bindal ay tuyaaba boo di dellu si kon nga tànn jumaa ja nga xam ne ji jàkka ja nga xam ne ji moo gën a sori nga dem defa julli ji maanaam mooy ëpp yool ndax ne jéego boo yëkkati rek dañ la cay bindal tuyaaba faral la ca aw ñaawteef sag dem ak sag dikk kon yaakaar naa bu la ko yàlla maye nga am wér gi ak cawarte gi ak man gi sax nag di dem te yàkk ja xam ne ji moo la gën a sori su boobaa maanaam yool boobu mooy ëpp mooy gën a bari te lu baax moom du doy lu xam ne suñ ko defee rek maanaam ame ca lu baax a baax am ca yoolab yàlla am ca tuyaabam rek ñu nga jéem a góorgóorlu euh, def loola te bañ a topp li gën a yomb rek ndax jullit moom lépp lu koy doon la xéewal ak yërmaande yàlla ak payag yàlla rek loola moom da ca war a góorgóorlu diiram jamono ji muy dund ci àdduna kon daal euh, ku ko man moom euh, boo nekkee ci dëkk boo xam ne jàkka ya dafa bari boo bu la neexee nga tànn jàkka yu xaw a sori di dox ay jéego yu baree bari yoo xam ne yi boo cay dem day bari dëpp di ñibbi si waat sa kër yi day bari day am solo loolu da lay yokkul tuyaaba joo xam ne ji euh, yàlla da la ko ciy defal euh, nga xam ne kon mooy ko ne doon tawfiix ci jàkka ji nga xam ne ji a beneen laajam bi ci topp te mooy ci laaj tey ba tey mooy laaj xokkumu tajawuzil jaami al aqrabi ilal abaadu li salaatil laaj ndax si nit ki sañ na bu ajjuma jotee bu nekk ci dëkk boo xam ne bi dañ fa julli ajjuma te ay juma yu bare bari ne fa maanaam muy weesu di romb juma ji ko gën a jege di dem ca ga gën a sori ngir e, julle jëfe waaw loolu may nañ ko jullit bi te ba tey may nañ jullit bi bu dee ci dëkk boo xam ne bii ay juma yu bari dafa nekk ba tey comme ni ñu waxan ca jullit mbooloo gi rek juma ju ko neex mën na caa dem waaye tamit tànn juma ja gën a sori di dox dafa demit mooy gën ci moom comme ni ko waxan ci jullit mbooloo gi rek ñoo bokk ab ko waxoon rek euh, lañuy bañ daal mooy nga ne ci dëkk boo xam ne bi dafa am juma yi ñu koy julli ajjuma ngay génn biir dëkk ba di dem ci beneen dëkk dafa jullee ji ajjuma waaye bu dee ci biir dëkk bi nga dëkk la mu nekk ay am ay juma yu baree bari moom itam mën ngaa tànn juma ji bi la neex rek nga dem dafa jullee ji yàlla ñu yàlla danga defal taw bi yàlla si Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ما ما